amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yu may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii bi Mustafa ña daa xiiru ak ñay mat rahmatullah seen gëñ ya foq yaa Cheikh Mahamadul Mustafa say taalibe ñii nekk Ndakaaru féete sowu jant nga xam ne yaakaaruñu ku dul yow amuñu ku dul yow bëgguñu ku dul yow bokkoo leen ak kenn wutuñu lenn fenn yow rek sa jëmm ci rek lañ bëgg soxlawuñu kenn soxlawuñu lenn ñun daal sa ngërëm la ñuy sax guddee bëccëg subaa ngoon ñoo ñëw tey fii di la ziar ci bisu bis bu tedd bii di màggalu Tuubaa muy màggalu Cheikhul Khadim Khadim Rasul sallam ñu ngi ànd ak Cheikh Mamadou Lamine Mbacke sa rak waaye sa taalibe moom taal doxandi taalibe li gën a dox dox doxandi rek ñu ngi ànd ak soxna Ami Mbacke ànd ak soxna Oulimata Kagne mi jiite jigéen ñi sëñ ma sañ Mbacke Sylla sañ Mbacke Sylla sëñ Mouhamed mii moo yore moo moo yore sous section homme ñooñu ñoo ñëw ànd ak alaaj Ndiogu Fall alaaj Ndiogu koo xam nag jàmbaar la bi du sonn du tay du toq mag la atam ak ña ak ñàkk wéram ko mu toog këram bañ a ñëw yónnee doomam sax mi ngi fi ñu koy sëñ ma ñëw Sylla bàyyi ma Sylla Sylla mii du sonn du tay saa su ne mi ngi ànd ak ñun di tàngi tàngi tàngi dem na boo ko doolam jeex tàkk waaye fu mu nekk nii doomam ñi moo ko wax toogal doom ji xalaatu ko sax toogal noppali ko ñi moo ko ñëw nañu nag ñëwin boo xam ne bii ñun yëg nañu ne dafa dugal nga ci sa loxo mbooloo mi bu leen xoolee di nga xam ni li ñëwoon daaw li ñu wane sëñ Tuubaa mu tànk gannaaw feeñ ci suñu convoi bii ñëpp a ci sant ñëpp ñoo ci sant ku ne am nga ji lu kawee sa njort tàmbale ko ci sëñ Mouhamadou Lamine mii ba ñuy départ Dakar bi kaar yi ñëwee mu tourné xool kaar yi ay bus daa dañu am ay ay minicar rek ay oto yu nangam ay njaganjaay waaye ren daayir bu ne dafa jël bus ñu daan di 30 personnes dañoo am problème ak nit ndax suñu koy dugal moom mooy seen problème bus yi fees na del ànd na ñoog waa Thiès ñëw ànd na ñoog Liberté Thiès ñëw sëriñ bi daal waxtaan wi moom mën naa bañ a gudd waxtaanu pël rek lépp a baax ñun ñii ku ñu bëgg ku ñu am jëmm ji moom lañu ñu liggéeyal guddi ak bëccëg su ngoon li ñu ko waxoon nag Dakar moom rek la yeesal fii moom lañ ñu doon wax sànq jigéen ñi nan la yaa nii moom tey ëllëg suba ngoon fu ñu toll sëñ bi amuñu dara amuñu kenn ñu new duñ bëgg suñu xol yow yaa si ne bokkoo ñoo kenn lu waay am na ko téye waaye yow loo am duñ ci doyal yow moom loo am moom na ñëw duñ ci doyal xale yi nag jàmbaar lañu ànd nañu ak waa social ànd nañu benn oto boo xam ne bii ay bagages yi nekk jëm ci ndongo yi ay lu mel ni ceeb ak ay yére ak yooyu nekk na ànd nañu jigéen soxna Mate Kañ mi jàmbaar la waaye sëñ bi dafa am loo ko waxoon daaw ñu bëgg nga wax ñu ko ñu góor ñi daaw jigéen ñii da nga leen wax ni ku nekkul seen biir mi ngi seen ginnaaw léegi nag ñoom ñoo ñu mën léegi nag comme ñoo ñu mën nag waxal ñu loolu ñun ñu ñu ñu ñu mën ñeneen ñi ndax mi ngi sa loxo laa yor lépp ñu ne lépp yaa ko yor léegi nag defaral léegi gone yii tamit gone yi xale yi ak mag ñi képp koo xam ne kii am na doole des na tout sa doole man Cheikh Ndiaye Sikkim da doon wax dara météo bi ma naan daa dof ndekete dofut daa xam ne nekk ci yow. lu ne mi ngi koy dig nii ñi ti tim dig naa leen lu ne maa ngi doog faal mii lu ne lu baax lu ne muy wér muy am muy tab muy ak taalibe muy xaalis wax naa leen ni sëñ Moussa Mbacke moo ko yore nañu fexe ba mu ubbi loxoom nañu fexe ba mu ubbi loxoom lu muy ubbee loxoom nag mooy nekk ci ay ndigalam di def lu mu bëgg te wax na ko ne mooy daayira bii ay baawul xaddim li su mi wax na ko léegi nag nañ ci samp suñuy xel di ci daw suba ngoon di def lu nekk waxtu yi dafa jot te kenn ko nekk xam na ne kii su ñu noddee moom dem na wax ji nag naa gën a gudd lool waaye ñi ngi sant góor ñi ngi sant jigéen ñi ngi sant ñëpp ñu ñëw li ñëw ren mosuñu am loolu sëñ bi euh, Dakar Dakar dañ daan dañ daan dañ daan dajale xaalis di dajale xaalis ba defoon ay jàmbar lañu ren laaj bi dafa bis bu ne ñu ngi laaj saa yu ko laaj ñu ñëw ku mel ni moo Mor Gueye nii saa yu ñëw bu ñu laajtee ñoom Malick ñoom ñëpp ay jàmbar lañu kenn du dem ba ni mag la géej waaye dañuy jóge wala fu ne saa yoo ne ñëwul indi xaalis mu ñu indi xaalis laaj bi dafa tegloo moo tax loolu mën nañ ko loo ñu yow daal yaay seet loo bëgg ci ñun waaye loo bëgg jekk nañu ñii moom da nga leen a moom bokkoo leen ak kenn Mbàkke barke Sëñ Tuubaa bokkoo ñu ak ku yàlla bind yàlla nu moom yàlla nu moom billaay wala yàlla moom jërëjëf bul faale ko wuy fa farje ki Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi leen di nuyu bu baax di tàmbale ci nuyoo bi taalibeem jawriñam léppam Cheikh Mouhamadou Lamine Serigne Bara mbakki mii ci wetam toog mi ngi nuyu ñëpp ay wut kenn waaye dafa mel ne ni ko Serigne seex mbakki jenn waxee léegi wax ji baati na ngi ci kat ndax bi ma ne naa nuyu sëñ Bara day naa ci teg soxna Alimata Kanji ak soxna yi kon sëñ bi li nga wax léegi dikk na ñoom kat ñi moom. tubaarkalla soxna alimatu sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax yaag mbooloo mi nga àndal ñëpp soxna ami Mbàkke moom Cheikh Mamadou Lamine mi ànd ak yéen ak sëriñ Baara Silla ak sëriñ Cheikh Mbàkke Jann mi jiite section bi dana mi ngi nuyu alaaji ma silla silla di ko ñaanal bu baax di ñaanal ñëpp di nuyu bu baax itam alxaaji Njoogu Fall ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne moom ngeen àndal yëpp teew ci barab bi kon nee mi ngi fàttali nag bu baax li muy jiital ci fàttali gi nee na mi ngi nuy fàttali ki nga xam ne moo nu fi indi bàyyi nu fi te lu ko soob def te mooy yàlla sunu borom te nee du ko nuy fàtte kat na taxaw bu baax ci ndigal yi sunu borom yi te xam ne day jàppandal sunuy mbir nekk ku la gën a nekk ci ndigal yàlla yi. gën laa jàpp gën la gën laa ay mbiram gën a jàppandi wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib képp koo xam ne yaa ngi sax ci ragal yàlla ak jàmm yàlla ak nekk li la sa borom digal sa sa sa yoon ni wut sa bopp jëm rek daje fa ak sa borom daj ko kon nee sax ci jaamu yàlla ko sa borom digle damay faral di wax nag ne moom mii di Cheikh Mouhamadou Moustapha bi kenn ku nekk ci noonu war ngaa seetaat sa bopp bu baax ndax lépp loo xam ne taxaw na koy suñu kanam digal ko kenn ku nekk xoolal da mën a waat Sëñ Tuubaa moo la mën ci digal la moo la ci man lu nu digal rek moo nu ci man kon lim nuy digal nan ca ne te xam ne ci la sunu njëriñ nekk jaamu yàlla gii muy digle ci la Sëñ Tuubaa amee lii jataay bii ci la ko Sëñ Tuubaa amee ak yeneen jataay yëpp. suñu borom natal ko roo yëpp natal ko mbindeef yëpp teg lépp ci loxoom ndax nangu gi mu ko nangul nangu ko doon mu jàmm firnde yi kat du jàpp sëriñ bi lim ñuy digal du loo xam ne daf koy wax rek ne nu yoon waa ngeen dem waaye de ci ànd ak ñun te lii mu ngi wax nii ku ubbi sam xel tuuti dana da nga gis misaal bi mu leer ci jotaay bi léegi ndax gis ngeen jumaay sëñ Tuubaa ji jumaay Cheikh mu ji bi mu sonee nodd daan di wax ne nañ bàyyi lépp bin bàyyi lépp ba noddu gi daanu daa jóg moom it bàyyi lépp na ñëpp maase wax li suñu borom def li suñ borom wax teg nañ suñu bët képp ku gis leneen yaa gis leneen waaye moom yàlla ak suñ tubaa rek la gis nan ko nekkal ci loolu jataay bi firnde loolu bu yemoon ci lii rek ñu jóg julli ji rek mu taxaw xool nanguutu gis kenn kuy taxaw nanguutu gis kuy organise nanguutu gis lan ndax sàmm lislaam rek bëgg ndamal lislaam bëgg ndamal lislaam ci loolu la rek waaye rikk waay na nekk ci loolu waay nan ko ci nekkal nan ko jàppale nan jàppale lislaam nan ci sax nan ci dëgër sëñ bi la bëgg ci noonu te yomb na nag te jàpp na itam ndax mi ngi nii te mooy sunu élément comme doon sa élément doo jamaj comme doo jamañ mukk kon loolu tawfeex la ci ñun kon nee nan sax jàmm yàlla bu baax beneen toom bi ci des nee na mi ngi fettaliwaat ci mbooloo mi dimbalante gi ak àndandoo gi ak boole xol yi a ngi ci de waaye neen lu ngeen ci gën a nekk rek moom doyalut lii sëñ Cheikh Diagne wax léegi ne lu waaye am bay mën nañ ko bàyyee yow waaye loo am doyulun ci ci waaye moom it da ngeen xam ne na bennoo ak dimbalante lu ngeen ci def rek doylu ci te yàlla xam na ne di ku ci nekk da nga xam ne moom mi yëg na ne yaa ngi ci li bëgg nee na nañuy dim dimbalante leen ci seen biir boolewaat leen xol yi bu baax bëggante leen ba koo gis rek mel na gis nga ñëpp lu ngeen gis muy tag wala muy jat wala muy ñagas wala muy dëgër ci xol yi dong la waaye sa laax bu xol yi maasee ànd lépp lu mu bëgg ko bu ne tikki ci seen xol rek loola day daal di am waajur mu tedd bu sell bu baax bu Cheikh Mouhamad Mbacke mu tedd ma bis nit ñëw na fi moom siyaare yëkkati sayu mburu aw sayu mburu wuñ def ci wuñ def ci mbuus saa cëb saako jox ko addiya mu daal ne ci mu kam deddaloon mu ne ko ca man de suñu borom man de fii ne saa su ne sama sama kersa mi ngi gën a dolli ko rek sama diggante ak suñu borom dal ne ko xam nga lu tax mu ne ko ah mu ne daf maa fayee de day def lu ne tikk ci sama xel mi rek loola daal di jëw man de fii ne wax jëlale naa ñaan léegi de jëlale naa ñaan waaye xel mi sax suma ma ko mënoon téye ba mu dem ci dara ma di ko téye sëñ Mbàkke loolu loolu ak suñu borom mooy dégg nga li mu wax jëlale naa ñaan suñu borom jëlale naa waaye léegi su ma mënoon a téye xel mi danaa ko téye ndax lu mu tikk loolee daal di ñëw loolee nag moo fi nekk ba tey kon sëriñ bi nee nan sax ci jàmm yàlla tax xam ne lu bëgg mi ngi ci loolu waaye nag na li mu gën a bëgg moom daf caa bokk lu mu gën a boole suñu bopp boole xol yi bu baax ba koo gis rek mel na gis nga ko ca des sàmmante it bu baax a baax ci ku ne ñoŋal sa derub moroom na kenn ku nekk fas yéene jataay bii. ba ba ñu toogaat ak moom te yàlla na jotaay bi di yàgg di yàgg nga jaayantiwaat ne sama mbokkum taalibe sama mbokkum julit fas naa yéen ab deram moom du ma ci takkat dara mukk tey du ma may kenn ci àdduna koy wax sama mbokkum julit lu dul noonu na ko ne yóbbaale loolu loolu bu ko defee rek ndeysaan tawféex dana bari ñëpp daañ firgi xéewal itam dana ñëw bu baax tey lay gàkk-gàkk ak lay andi musiba ak yeneen ca lu mel noonu da mbooloo mépp daan ci kon nee na mi ngi leen di digal loolu bu baax a baax fetli waat jàppoo gi ak ànd gi ak dimbalante gi nee na mi ngi fetli ci tomb bi ci des li ëppal njariñ ñépp te lépp gi ci biir muy fetli waat laxasay ak taali na lu ñuy bëgg lu ne ko seet ci bi topp sëriñ bi bëgg sëriñ Tuubaa rek fetli waat laxasay bu baax jaayante waat bu baax jéem a dox te waaxu bu baax ndax sëriñ bi kat fa mu jëm ñeme na fa lool xam na ko lool te ragalu fa it waaye nag yittee fay dem yittee fay dem yitte nag mooy lan mooy fas yéene saa boo xëyee rek la nga defoon démb nga mel ne defoo woon dara loolu nag yéen nee na war ngeen sant yàlla bu baax a baax ndax li wér te wér mooy fu ngeen nekkoon ku nekk kenn ci yéen nattab lu wun ne bu ngeen toogaatee kam yëg nga ne dooleeku nga baax a baax yëg na ne mbooloo maa ngi dooleeku yëg na ne pas-pas baa ngi dooleeku yëg na ne positif baa ngi dooleeku la ndax yaa ngi nii ma taaj kenn ku ne li nga bëgg mi ngi nii may janoor waaye feeg boolewu leen seen bopp dama leen di boole ba noppi kenn ku ne may kër sa jox la sëriñ bi nag ne na ngeen xam ne yéen ndax loolee nekk ci kanamam cër yi moom tàmbali naa dugg moom na ngeen xam loolu na ngeen na leen wóor ne kenn ku nekk sëb cër bi nga xam ne moo ko yoreel mi ngi ñëw agsi na du lu muy waaj de bu kenn nattab ku nattab li loolu rek bay boo nga tàmbali waajaat ku nattab li sa bopp ne sëb cër ñëwul wallaahi bay boo nga tàmbali waajaat moom tàmbali naa joxe moom ndab lee dañ koo taajoon di ko waaj joxe léegi dañ koo tibbaateloo te nun ñii nag lay jëkk a jox te dañuy romb nag ku yaa fuus nag ba yëf yi romb la yaa ko def sa bopp waaye Cheikh Moussa nun ñi doom taxuñu koo jóg nun ay poosam lañ ay jibaam lañ li nit ci bëj da ko yëkkat jox ñi ci àll ba wax naa ko waxati ko ca tam Makkatal Mukarrama dañoo dem di ziar Rasulullahi ma nag ci gën a am ne ko Mbàkke day noo ngi fasaaleel dong yi déglu li ma lay baax noo ngi fasaaleel taalibe day Mbàkke mu ne patt ba yàgg mu ne ah waaw moom day sant yàlla rek noppi naa ci ñoom fii nii di ci al ummatul islam ci julli ñi laa nekk fii nii julli ñi laa nekk man loolu duma ko fàtte moo ko wax ñooñu moom Moustapha noppi naa ci waaye ci jullit ñi laa ne jullit kon foofu la nekk kon nan fekk lewaat laxasaay yi bu baax góorgóorlu bu baax te santaat yàlla bu baax te ñeme nag ci liñ ne sëriñ bi nee na mi leen di fàttali léegi bii mu santaane di ahiba al xadim li nusrati diinil xawim wóor na ko ne fàttewu leen ko wóor na ko ne yéen a waaye dafa bëgg a dëgëral seen pas-pas ci ngeen xam ne ak lu ngeen fi mën a gis ak lu ngeen mën a dégg li ñuy wut li ñuy wut te di ko soxlawoo mi ngi ci liggéey bi te képp koo xam ne yaa ngi ci ak koo mën a doon ak foo mën a ne ak lu mu ruqe-ruqe na la wóor ne boo ko gisu dig na nga xam ne moom Cheikh Moustapha mi ngi sa gannaaw loolu doy na sëkk mbooloo mi loolu doy na sëkk liggéey bii di Ahibahil Khadim nee na ñuy wut laa li ñuy wut di ko bëgg ci sëñ Tuubaa sëñ Mudu Musaa secret boobu mi ngi ci liggéey bii te képp koo xam yaa ngi ci la ne jërul ngay xool dara boo geesoo boo ko gisut loo nekk mën a ca lool nee na nag li ngeen ci def lépp gis na ko yéen waa section Dakar sëñ bi seen pas-pas gis na bu baax nee na xam na ko yëg na xam na coono yi ngeen di jànkoonteel ak li ngeen nekk lépp waaye nee na na leen doy gàllaaj na leen doy ngànnaay na leen doy wéeruwaay ci ne moom mii fu ngeen nekk bi nga ànd ak yéen ca lool mooy seen ngànnaay mooy seen gàllak mooy seen wéeruwaay na ngeen jàppaloo te yóbbaale loo te xam ne ni nga ko daan waxee rek na leen wóone de tey ëllëg ku ngeen gis ku nekk ku ngeen bëgg a gis bu ñu demee dajeeg sëñ Mudu Musaa sëñ Mbàkke da ngeen di gees waaye seen kan du nga di gis kenn loolu nag ñu ngi koy amee rek ci nekk ci ndigalam yi rek nan ni ci ndigal li lum ne waaw rek loolay dëgg lum ne nekk ci lool te yéen loolu baax a baax ak lu ngeen mën a dégg ak lu ngeen mën a gis ak lu mu naat naat ak lu mu rafet rafet ak lu ñur ñur lu baax lépp lu baax bari na waaye moom mi lu mu wax nga ne waaw rek moo am njëriñ waaw rek moo am njëriñ ci moom nangul ko rek la sëñ Moustapha Gaye waxoon rek alxuraan li muy bari bari sëñ Moustapha Gaye na ko jëluma ci saar jëluma ci isib jëluma ci robo alxuraan jëpp benn baat laaj benn araf benn lettre laaj benn lettre mooy lettre waaw yow daal loo wax teg naa waaw ci sa kanam nañu ci jàmbaar jooju sëñ Moustapha Gaye moom kon lu Cheikh Moustapha wax nee lu Cheikh laa ne nee leen wax loolu rob ci la lépp nekk kon nag ñun ñëpp nan maase nan maase te man dama waat fii jumaa jaa ngi nii ak sëñ Tuubaa bu ñu ko ñaanalee suñu borom def ko waaw seen xol yii li ci nekk ak pas yi yii bu ñu ko ñaanalee laan sëñ Tuubaa dana ko def na ñaan na fi yàgg na wér lool li bëgg liggéey sëñ Tuubaa na ko liggéey ba amee ko ko bëggee kenn ku nekk sa ndab yaa xam la nga bëgg mu nekk sa ndab yaa xam la nga bëgg ñu def ko ci ubbi leen ndab yi insha allahu dana fees bay falngaat bu kenn ku ne da nga loo xam ne mosoo ko ci barke sëñ Moudou Moussa na ñëpp maa sàll loxo yi bisimilah. sant nañ la cant bu kenn cantul waane yëgal ni samay ji tuntul sang bu nekk yàlla may na koy may waane may ak sang may yi mu la may sang bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag yàlla dalaa sopp mbàkke ba jëmmam na la may. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaa ña daawoote ña daawaate Moustapha